ñu carte d'identité boo xam ni buur géwél mooy fu nu seen rek ñuy dem ñu xam ne làmb xewle na làmb nag moo jóg wala boog moo jógati ndax boobu ak léegi dafa mel ni loolu ñuy wax corona dafa yëngal làmb yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla bum mu kenn ci réewum senegal yàlla bu mu lorati kenn ci àdduna wërngal këpp waaye dafa mel ni promoteurs yi corona lañ doon xaar pour yëngal ñi amul woon combat am nañ komba ñi jotul woon avance jot nañ avance waaye tey nag Jamaïcain production moo xew le gannaaw bi mu jógee ci saison deux mille vingt tëgg ay combat yoo xam ni kenn dootu ko fàtteeti Saalum Saalum ak bébé france fu mu la fekk wulli ak liiru jaan fum mu la fekk tëgg xoyantaan ak baay Mandione fu mu la fekk tëgg fii franc ak bébé Saloum fum la fek bokk ci promoteur yi nga xamni fessel nañu dal arène nationale duy ko ba mu fees tuddee ko ñi nga ñom yaa ñooy lor waye ñëw taxawal combat bo xamni aduna yépp yëpp ñu ko doon wër budé ci gambi tollu way bi dañuy wax modulo ak Balla gay muy France ak Leket mom la teug ci gambi signature contrat bi dong day fessel dell dell del eh, indépendance eh, stadium bu Bakaw waaye tey mu ñëw nag indi xale bi nga xam ni roi la lii Sénégal rek la am bu ñu nee kan mooy roi des arènes Sénégal nga ne Modou Lo ñu ne kan mooy roi des kaw Kaolack nga ne Double Tyson <laughs> incontestable Saalum ak li ko wër région yi rajaxe na ko léegi nag mu signé. ak Jamaïcain production la dal Reug Reug xaw ko dal dina xaw wutel wuteel euh, euh, wutel adversaire waaw wala déet waye Jamaïcain dafa ne fo gis plan A amna plan B nee plan A am moy mu bolé roi des arènes bu kaolak Saloum ak roi des arènes bu gambi muy na moy plan A la négociation ya 90% na ci 90% Double Tyson mi mu signé na te bu combat ba taxawé mu ko kaw la ndax xalé bi fay bolé titre roi des arènes bu Gambie ak bu kaw la ñëw ñëw Dakarou roi des arènes bi frontière rek euh, Gambie je donne ma langue au chat nee na nag am na yeneen mbër yu mu ko booleel léegi dinañ ci dikk ak ñoom léegi nag dañuy yëkkati kàddu gi jox ko jamay jamaïcain jam production mu wax ñu fu ñu jëm bu ca noppee nag ñu jox ki nga xamante ne nii moom mooy Double Tyson le roi des arènes de Kaolack ñu soog a dellu si waat jamaïcain vous avez la parole. auzu billahi mina seytaani rajim dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax julli si Seydina Mohamed di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass di nuyu kilifa diine kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp di nuyu yéen ñi fi teew yëpp maa ngi leen di jaar di leen jox seen wàccuwaay képp kuy liggéey ci presse ak di nuyu fi ngeen ñu fekk nii muy place boo xam ne suñu père Lamine moo fi nekk ak képp ko mu fi nekk ak ñu ngi lay jaar bu baax a baax a baax di nuyu tamit suñu naataangoo fi teew ci mel ni Pape Sarr production mu ngi fi maa ngi koy jaar bu baax waaw Père Lamine tënk na wax ji yëpp jam production ñëpp xam na la benn jeune la boo xam ne bi mu ñëwee ci làmb ba léegi mu ngi jéem a créer ay événement tëgg làmb nag ak créer événement dafa utee ndax bi ñu ñëwee lu ñu njëkk def ci làmb mooy tëgg Baye Mandione ak Goro Sock dat amul Dakar ñu yóbbu ko ci région yi muy Ndar ndax ñoom ci dañ bokk ci làmb dañ war di gis làmb mbër yi ñoon seetaan télé dañuy bëgg xëy di leen di gis ñu jugee ko fa ñëw tëgg Iba Mar journée boo xam ne 4 heures tëj nañ porte yi ñu ne pourquoi pas ñun ay doomu sénégambien lañ te bëree am na fu nekk ci àddina waaye bëree dóor Sénégal rek la amoon Gambie commencé di ci yëngu ba am seen roi des arènes ñu ne pour ñu jël làmbu Gambie wan ko adduna bi am fuñ ko yóbbu dañuy jël benn mbër bu mag senegal dem boole kook roi des arènes bu Gambie muy Baye Mandione ñu jël Baye Mandione yóbbu ko boole ko xoyantaan mu nekk événement boo xam ne ñu gis TFM liggéey bi mu ci liggéey ak site yi bëri c'était retard direct adduna bi yëpp suivre lamb jooju ñu am lu ñu wane ci lamb Gambie lu mel noonu nag doo ko def ci réew réew mi yaakaar la seen lamb ba pare nga dem di dellu ginnaaw ñu ne lan lañ war indiwaat ñu jël leket ak France muy combat boo xam ne juróom-benni at promoteur bu nekk bëggoon nga ko foofu ci Gambie mënul sotti sa loxo ñu ñëw décroché ko def ci ay moyen pour taxawal ko tuddee ko Youssou Ndour lu tax ñu tuddee ko Youssou Ndour nag mooy dañu tëgg suñu lamb mu yebal télém télém di télé privé TFM ñëpp xam nañ ne déplacé télé réew ak réew jafe mu dem defal ñu fa 7 heures boo nekkee ndaw nit defal la lu mel noonu munoo def lu delloo ko njukkal te delloo njukkal bi du xaalis boo koy jox da ngay xool fam la defalee taranga nga delloo ko fa taranga ji ñu tuddee ko France ak leket bi ñu jógee ci loolu nag lamb am coow Double Tyson mi ñëpp xam nañ ne raatare na Saalum ba nekk roi de arènes bu Kaolack waa Kaolack ne ko Tyson nekkatu ci lamb kaay yow yaay sunu buur bi ko waa Kaolack tànnee ne ko yaay sunu buur jox ko raay jox ko mbaxana bi solal ko yére bi ne yaay buuru Saalum xoyantaan ñu ne mooy roi des arènes bu Gambie ñëpp xam nañ diggante Gambie ak Sénégal sorewul rawatina diggante Gambie ak Kaolack Kaolack nekk dëkku làmb tey boo jëlee ay mbër fii dakaar ñaari mbër yu dëkkul Kaolack sax boo demee nga gis nu ñuy def stade bi ñun ñun pourquoi pas du ñu kere benn événement mooy jël roi des arènes bu Kaolack boole kook roi des arènes bu Gambie fu ñu koy defee ñu ne Kaolack ndax Gambie comme ma Mandione bee yoon moo demoon fekk roi des arènes bu Gambie ñun dañ am philosophie boo xam ne ni ko Baye Mandione fekkee mun na war na mun a fekk ci mbëru Sénégal ñu wane la ñuy wax dëgg la suñu suñu digganteeg Gambie war nañ di mun a demalante lambu senegal dem ba roi des arènes Sénégal dem di bëree ju Gambie roi des arènes Gambie ñëw di bëree ju Dakar loolu mooy suñu suñu plan jamono yi nag dafa am ñoo xam ne ñu am idée da ngay teg sa idée ba pare ñu ñëw bëgg ko kii yow bi mu demee noonu comme double juboo nañ ñu am ak moom contrat boo xam ne nii dañ koy téye pour bëreloo ko mbër bu mu bëgg xoyantaan quatre-vingt-quinze pour cent am na amoon nañ ko ba léegi làmb nag booy signé ak mbër contrat day am plan am plan B plan A bi mooy diggante moom ak xoyantaan am nañ ci ay idées yoo xam ne dem nañ ba bëgg leen a proposé ñu def ko aller retour bu ñu kaw lag ba pare dem bëree jiwaat Gambie ku ne fekk sa morom ñun pare nañ pour def loolu ci làmb sori nañ ci ñu ngi ci am nañ yaakaar ne loolu dina nekk su loolu nekkul tamit ndax nit boy signé ak mom da ngay signé ak mom lu leer lu taxaw lamb ji ñun ñewuñ pour benn mbeur mom mi bi mi dugg ci lamb duggul ci lamb pour benn mbeur xoyantaan bi mi dugg ci lamb duggul ci lamb pour Double Tyson waye am nañ ay philosophie yu leer ne suñu amul xoyantaan digënté Double Tyson ak Baye manjon askanu Kaolack ñoko bëgg da xam nañ ne Baye ci carrière am ni mu bëree ji Kaolack bëri na mm-hmm. ta Kaolack yëpp ko sopp mok Baye Mandione paré nañ pour def ko fa événement ba tey amaan nañ si projet boo xam ne Baye Mandione ñoo ko bëriloon a xoyantaan làmb ji yëgul ñoom ñett mun nañ leen a créer benn trio de choc boo xam ne seen diggante non mun pare nañ dama ne la max bi bu rëbee boo bëggee dugal bii bu rëy da ngay lettraal ndax ñun xaw nañu am tuuti expérience ah. lamb bi xam nañ lamb lamb ji bu tijjeegul sax mun nañu xalaat ne ah lamb ji déwén situation bi lay demee nii nii lay demee te Kaolack te Kaolack dëkk bu bokk ci lamb la hmm. événement gëj na fa am bi bu jeexee Kaolack ni Dakar di nammee làmb noonu lañ koy nammee du ñëpp ñoo mën a jugee Kaolack ñëw di seetaan ci làmb kon dafay jot ñu yóbbul leen ay événement yu mel noonu loolu moo tax tey ñu teg lii nii làmb ji nag pare nañ pour def ci loo xam ne incha allahu rabbi bis ñu ci paree ndax duñ xaar ba làmb ji passé ñu koy wax làmb ji suñ ci demee ba dugg ci ba jugee ci bu ñuy compter événement yi gën a réussir Sénégal dañ ko ciy boole waaw loolu moom dama bëgg na ko ñëpp bàyyi xel combat bii dama dama ne leen mooy combat bi gën a ci histoire lamb hmm. Double Tyson non ken musul boole ñaari roi des arènes musul am ci lamb hmm. kon suñ ko defee dañuy jàpp senegal combat bi mooy combat bi gën a rëy Sénégal ci combat yi taxawagum yëpp te buñ ci duggee ba génn ci dinañ ne du moromu new mbër maa ngi nii moom xam na fu ko waa yow Double Tyson génn waa Kaolack soutenir ko taxaw ci gannaam xoyantaan génn ànd ak ban stade mo attan loolu ci Kaolack li may wax autorité yi lenn la nañ ma yokkal stade bi defal ma ko cinquante mille places ma feesal ndax Kaolack Sénégal cinq frontière la am ak Afrique juróomi réew yoo xam ne ñoo Sénégal ñoo frontière kaat yëpp boo fa jógee di ñëw dakaar di ñëw Sénégal da jaar Kaolack kon Kaolack Carrefour la capitale la ci biir capitale yi lamb Kaolack dañ ko war a suqali wane cosaanu Kaolack wane cosaanu làmp ndax am na dëkk yoo xam ne ci biir Saalum dëkku làmb yoo xam ne histoire yooyu ba léegi génnagul te ci événement bi lañ ko bëgg a génne dinaa si cité benn dëkk Elton papaam dëkk bu mu cosaanoo ñu koy wax Ngàbba cosaanu làmb bi fa am amul fenn ci àddina Elton ci boppam xaw moom xam na loolu waaye man xam naa li may wax te loolu yëpp war nañ ko mun a génnee ficelé ko ci événement bi dugg Saalum dëkk yi nga xam ne buur mus na fa jaar yëpp xam nga dañ ne buuru Saalum buur buur da nga koy valoriser dugg salum fépp fu buur musa tek tankam ga lacc lan moy histoire buur yi lan lañu def fan lañu musa jaar ñu bu teggal leen junjun ñu bëré ku daan nak ñu na la yow yaay vrai buuru salum yow yaay vrai roi des arènes du Sénégal yow yaay vrai roi des arènes du salum événement bi loolu te buñ ci duggé ba gën di ngeen xamné lepp dëgg la nuyu nak suñu papa bu baax Lamine Samba ndax ragal fete day xagne wërsëg tay yeen ñu konferen suñu comme frère ngeen suñu xarit ngeen fuma burgel dem ngeen fekk ma ci melni beul Lamine yow yeen ñu fi dajé yépp fu ma nekk fekk ngeen événement bi nag dama bëgg ngeen porté ko mu nekk seen événement ndax làmb la ci biir làmb yi histoire la ci biir histoire yi d' abord dina am fu mu yóbbu làmb Sénégal ak Gambie dina am histoire lu mu wanewaat ci Sénégal kon événement baa ngi noonu wax ji jërul mu ciy gudd li ci des dinaa ko bàyyi ak mbër mi mu communiqué ceeg ñi mu àndal en tout cas bu buñ ci jógee ba génn ba saison bi tëj buñ naan lamb yi gën a réussir lamb ji lay doon mën naa ko wax benn combat nag gënul rëy combat bi ci Sénégal ak combat bu mu mën a doon respecté naa mbër yi koy bëree nag waaye événement ak làmb du benn te lii événement la ci biir événement la maa ngi sant ñëpp di nuyu sama papa père ba bu baax a baax a baax ndax tey su ma demee ba am fit dugg ci biir làmb moom la maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam di nuyu Mansour ba suma directeur di nuyu waa Gambie yëpp di leen wax ne lii seen bis la seenu événement la na ma ñëpp xaar man suqali làmb Gambie ak làmb moom a jot tam maa ngi ci jour ma wax ne am naa idée yoo xam ne su ma ko exploité mbeur di fayé ko 500 millions te promoteur du perte du ko yaakaar ci sponsor du ko yaakaar ci billet. Hmm? non xam nga du idée da ngay ñëw di ko teg la réew mi làmb man dama gëm né làmb dafa wara bana bok ci luy loxé Sénégal tay président de la république na dajalé promoteur yëpp dajalé akhlu làmb ma porte dossier bi teg ko ci loxo président promoteur bi mu jox ko ko bu ñu dossier bu féké du lu mëna sukkali suqali wala du mëna yobul Sénégal feneen ah nañ ma yobul président li may wax non lu leer laay wax ñun làmb porte yëpp lañ lañ lañ ci dugg porte yëpp lañ ci dugg làmb dafa war a mën a yóbbu am lu mu def ci koom-koomu Sénégal làmb exploité guñ ko làmb lu ci nekk yëpp génnee guñu ko bëree bi moo ci gën a tuuti làmb li mu war a génnee dafa bëri tey am na si ñoo xam ne mun nañu wax ci làmb lu bëri tey fii kenn koo fi gis am na ci idée boo xam ne mun na doxal làmb nañu jàppale làmb yóbbu feneen làmb d'accord waaw d'accord di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa Lamine bu baax a baax a baax ak képp ku fi taw kilifa la tam ñu taxaw ndax làmb boolewuñu néeguma ba dugg ci làmb door a xamante ak moom avant may dugg ci làmb la ñu xamante maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaay jaa ngeen jëf waaw bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci bi di sant suma ñaari waajur maa ngi sant suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu waa ahlu làmb yëpp rawatina Kaolack gi ma dëkk ak jamm gën si baw di nuyu tamit wa Gambi xarañ family ma ngi nuyu wa bara yëpp di nuyu képp ko bëggé dougul tayz rek nuyu na la waaw Jamaïcain am naa moom contrat mom la ñëwoon pour def ci ni euh, lu mu wax dégg na euh, dégg na ko sama staff dégg nañ ko te d'accord nañ ci loolu euh, ñu ngi xolal roi bu Gambi muy xoyantaan bu fekkee ne d'accord nañ ak xoyantaan dañ koy bëre ji kaolak bu fekkee tamit nee d'accord d' accord ak xoyantaan bàyyi ma ñoon la may indil Kaolack waaw sama staff ba d'accord accord nañ ci euh, amatuma luma ci wax lu euh, continue ak sama euh, entraînement baye ko sama staff wa lolu la amone pour wax. digënta bàyyi ma ñoon ak comme liñ wax rek xam nga mom daf na dafa bëgg a taxal digënta senegal ak Gambie tay xoyantan indi roi am ko am indi sama roi teg ko dafa nek lo xamanteni ni du nekk làmb ju tuuti te man pare naa pour teg sama roi pare naa pour teg lépp waaw moom it bu la gënal kon waaw moom laa la su fekkee ne am nañ xoyantaan baax na moom a gënal bu fekkee ne amuñ xoyantaan tamit ba tey ñu bëreeg baay ma joon rek da nga a def retour kon dellu Gambie fekk xoyantaan biir Gambie laa amoon ci digganteeg bàyyi ma joon nga clarifier ko leeral ko pare naa pour loolu waaw pare naa pour loolu noonu waaw waaw bu ko loolu ci moom la des rek parce que man carrière laay def carrière gu may def euh, xaaruma comme benn benn mbër rek su ma amee su ma amee bàyyi ma njool ma bëreeg bàyyi ma njool waaw su ma amee xoyantaan ma bëreeg xoyantaan mais concentré ma ci comme benn mbër rek xoyantaan xoyantaan rek mais bëri xoyantaan Gambie moo gën neex te mooy ëpp ambiance ndax waa Gambie fi ñu ci làmb ak ni ko bëggee waaw mooy li wax rek loolu ci ci kii la de ci amateur yi man amateur yi laa fi nekkal bu dee gis nañ na Gambie moom foofu foofu la lamb jëppee coow waaw bu ñu bëree jee Gambie ba tey baax na bu ñu gisee tamit ma bëree ak Baye Mandione Kaolack moo ëpp coow ba tey ma bëree euh, Kaolack ak Baye Mandione moo ëpp mais pourquoi dal ci Baye ma Baye Mandione ci côté carrière mu ne xam ne ni carrière moo gën a riche moo lépp expérience ci làmb daanaa nu bëri nga pourquoi le choix jour Baye Mandione làmb amatul loolu de lamb léegi amatul loolu de sama turon doon wax làmb business la waaw sport business la bu fekkee ne moom jaral na ko mu ñëw ñu bëre fay nañ ko lu ko jar mu ñëw ñu bëre ah làmb amatul loolu léegi. ah man <laughs> man du ma la wax lan la ba mu jël avance bi rek après ci nga xam lan la. ni mën nga ci joon daal. man damay damay ci àll bi di daan ñu ëpp bàyyi ma ñoon fuuf. maa ngi yeew non non non maa ngi yeew sumay nag di bëreeg ñu ëpp bàyyi ma ñoon fuuf. ci àll bi non waaw lépp laa mënee nag damaa mën ci bii boor mën ci bee boor. mën ci yii boor mën ci yële waaw man de man dama jàppoon ne jam daf la bëgg a sacrifier ndax ñaari combat yëpp la sampale pour man sacrifier waaye daal gis nga ne mel gam bi doole jam yor public ba mu àndal ak ña muy àndal bàyyi ma doon gaynde la du xaar. public ngay wax de public. public amul ku ma ko ëpp si ñoom ñaar ñooñu ngay wax. biir Kaolack wala ci lu may yóbbu gam bi ay bis laay duy di ko yóbbu gam bi bu dee Kaolack la nag moom bu njéexee man ma tëj stade bi gisee moom dootul dootul njaayal loolu moom waaw suñ ko bëggee comme lu jaméricain wax loolu ci ñoom la des suñ ko bëggee ñu def ko benn tournoi te tournoi bi buñ ko defee it dina ngeen taxawaat ak seen i micro bu neexee yàlla ngeen gis man maa nekk euh, roi bi ba tey. yow yaay jël tournoi maa waaw maa jël tournoi bi soobee yàlla. mais Double est-ce que du day xumbal ñoom ñaar ñëpp maa leen gën a nekk xale ñoom ñaar ñëpp maa leen gën a nekk xale. ma ñëw nag waaw ñoom ñaar ñëpp. gars ñu bàyyi la nga nga woo ñi nga woo rek a def ñu bàyyi woo ñi nga ñi bëgg a woo diggante Kaolack ak Gambey ci biir réew ak ban ak looy mujjee wax bàyyi ma ñor ndax ñoo nag lay dégg te ñoo laa mi ñam newul ci poosam koy tànn mu lay dégg loo ko yóbbante waaw comme li nga wax rek ñun ay saalum saalum lañ di wax ne képp koo xamante ne ni yaa ngi dëkk Kaolack te ngay saalum saalum rek di la wax ne am naa contrat ak jam soxla nañ nag ndimbal ci combat yi parce que tamit fii ku fi ñeme dañ laa dee di wax ne rek soxla nañ ci ndimbal bu ne côté bu nekk parce que tamit ay xale lañ di def carrière bëgg a def comme nu Mouhamed Ndao Tyson doon def euh, di tàllal ñëpp loxo ñu ñëw jàpp ci combat bii damaa bëgg duy stade bi ba mu fees damaa bëgg duy stade bi ba mu fees parce que euh, comme li may wax rek bëreeg Baye Mandione bëreeg xoyantaan loolu benn jaar-jaar la rek boo xam ne dafa nekk suma yoon ma fel ko pour jàlla mais nekkul ñoom laa opté pour bëreeg waaw damay dama dañoo nekk sama yoon rek dañoo bokk yoon rek ma war a mën a bëreeg ñoom waaw su ko mën. ñu mooy Folentane moo tànn est-ce que loolu tax Folentane moo tax nga mooy e li may wax rek xam nga soo gisee ma wax loolu dama ne leen bu jëlee avance bi. ma ma wane sekkerem. dafa am sekkerem waaw dafa am sekkerem boo xamante ni mooy daan fayam daan ta mën naa ko yor. waaw daa am eh, secret bu boo xam ne mooy daan xoyantaan taman maa dem guerre di wax eh, moom fu ngeen mës a jaar yow non loolu loolu après la na jël avance ba pare rek bu dee eh, bu dee jël na avance bi loolu après la waaw mbapat lañ bëree ñoom ñaar loolu du arène de mbapat la mbapat moom boo ko non non non mbapat la mbapat la waaw mais daan na suma mag waaw man nag ci bëre dóor bi laa ko wax ne bu ñëwee. ma wane sekkeram. looloo ne sa xol non non nekkul sama euh, xel damaa liggéey li may liggéey ba toll foofu foo xam ne làmb boole ñu moom it mu liggéey làmb boole ñu rek làmb daf ñoo boole. mais secret lan la. non mënu ma guma ko wax. ba arbitre siffle ngeen di soog a xam lan mooy secret xoyantaan lan nga koy wax aw ma lenn lu ma koy wax dëgg yàlla aw ma lenn lu may wax xoyantaan waaw bu jëlee avance ba pare ci laay soog a nag li may def ma sor ko def bu dee tamit ñemewu ko jël tamit bu dee bàyyi ma ñoon mooy jël avance bi ba tey ah ba tey man it ma ma doog ko def euh, li def bàyyi ma ñoon waaw ñoom ñaar ñëpp ku ci ñeme daal wala ku ci pare rek man maa ngi lay xaar man la fa dese waaw man la fa dese waaw nuyu naa ñëpp gërëm ñëpp di nuyu sama grand frère bi ma ko àndal mi action waaw di ko wax dérangement na trop parce que mu ngi ba Gambie ñëw Euh, di wax ne waa Kaolack daal am naa combat man ak Jamaïcain am nañ contrat waaw di wax ne nag ngeen xaar ñu Kaolack te nag bi bëgg naa autorité yëpp ñëw jàpp ci autorité yëpp nag du ma tudd tur autorité yëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi ñoom laa ko jox parce que dama bëgg a wane suma bopp waaw talal naa leen loxo nag wasalaam